man de li ma la waxoon rek man daal ku naqari deret laa parce que nag damaa xamul triche ku naqari deret laa parce que xawma triche man soit bu weexee maa la weex na su ma ñuulee Sénégal gépp dinañ xam ne ñuul naa parce que loolu la ma yare su may jéem a triche sa day feeñ ci man waaye man man la tax ma sacrifier sama bopp ak ñii xam naa ko parce que ñii fu ma leen woo bu heure bii xoola ban heure a jot ñu bëree bëri yor seen i kër di ñibbi fu soree sori barke Ahmadul Xadim tey jii bu sëriñ bi aayul woon aayul woon politique Touba billahi wallahi taala du ma dajale fii xam la laay def dama lay jàpp nga jë may ma jour ñu dem ci quartier périphérie mooy sancaan yi fii ñoom ñu bari jóge nga xool nañuy dundee parce que tamit réew boo ko bëggee yor da ngay dem ci ñi nga war a yor jiite ëllëg naka la ñuy dundee ba boo yoree réew mi nga xam nii lii mooy seen jàngoro nga mën koo faasaaku parce que man loolu la gëm li ma gëm mooy il faut descendre sur le la rencontrer les gens pour xam dëggantaan ñii lan mooy seen préoccupation pour que boo toogee nga ne ah man demoon naa fii de lii mooy seen préoccupation parce que lay préoccupation waa Touba du préoccupation waa Dakar lay préoccupation waa Dakar bokkut ak waa waa Casamance kon nag pour savoir cela il faut que nga nekk en contact direct et permanent avec les Sénégalais loolu daal moo ngi lu mu lay dolli loolu laa lay dolli man man dal la sa xel bu baax bu doon lii nga àndal ñëpp bu dee man man képp képp képp ci des man kese ci des je serai le dernier à reculer parce que xam nga loolu lu tax ma wax ko fii c'est important parce que ñii la ma yàlla boole ci politique am na loo xam ne tënkaguma ko kook ñoom waaye il faut que ma wax ko fii te ñoom danañ comprendre parce que as gor laa nee naa leen ciment la benn yoon laay tooy kii nag kii li tax ngeen war koo jàpp laa leen leer li tax ngeen war koo jàpp laa leen leer taalibe Serigne Saliou la xam lu tax ma jàpp ko damaa ñëw mu ma Abdoulahat man bi ma falee bi may nekk bi may nekk impôt impôt ñu affecté ma Fatick Fatick lañ ko ak affecté Fatick bi ñu demee Fatick ñu affecté fa kam war a remplacer Fatick kooko da di taalibe Serigne mais boobu moom mii moom mii taxul mu xam kuy Serigne Saliou ndax boobu doonagul woon murit moom mii xam nga biir famille néew na ma moom mii moo ci doon murit wala ak ñeneen mu jugee ba Kolda. ñëw ba Touba yaaka bàyyi dëkk romb yi dëkk ñëw yaakaar Serigne Touba ñëw fekk leen yéen ñi taalibi Serigne Touba mu jox leen loolu yéen ñi yéen amel bor kii ab taalibi sëriñ Touba buy wut ak keneen ku dul wut ku neen kuy wut yéen ñii dëkk Touba war na leen a jaral nag lu mu jaralul kenn xam ngeen li mu defal Serigne Saliou laa leen leeral bala bala may ñëw ci lii ko Serigne Mountakha wax rajo laay waxal ci karamu kamera duma ko fenal te nag fi ma bokk fi ma bokk muy njabootu Cheikh Ibrahima jom naa taxaw di waxal sëriñ Muntaxa lu mu waxut kii mais dama leen leer bi mu demee Fatick fekk fa kam fa remplacé woon kooku jël photo sëriñ Saliou dugal ko ci tiroir mu xaw a poussière mu poussière lool bi mu ñëwee remplacé bi mu yegsee ba xool matri bagage yi bi mu xool ubbee tiroir yem ci photo sëriñ Saliou mu poussière mu ne waa mu woo kim fi remplacé ne ko wax yow dafa mel ne sa bagage yi ñu fi bàyyi am na benn benn sa photo wala sa photo maam wala sa foto papa boo ci bàyyi ndax boobu moom xamul kuy sëriñ saa mu ne ko non non non kooku ne ko non kooku sama sëriñ la mooy sëriñ saa l'acteur xalifa général des mourides mais dama ko doon dama ko doon monté li tax ma dugal ko foofu dama ko doon monté foofu ci miir bi ku ñëw bu duggee yam ci moom sama mbokk murid dañ may ñaan ba ñaan ma loo xam ne waruma ko mën a maye ci jàkk ci barke moom moo tax bi ma demee ba sonn ma jël photo dugal foofu mais mu ne ko mu ne photo bi dafa poussière mu ne ko léegi yaay xool bu la neexee nga jël ko téye ko bu la neexee nga xool foo ko teg noonu ndax mbokki murid bu ñu ñëwee gis ko dañ la dañ la fay jaar la sonal mu jël photo bi dépoussiéré ko maanaam jël ab morceau fomp ko ba mu set jël photo bi teg ko ci taabalu bureau te xamul kii mooy mu tëdd ba guddi mu tëdd ba guddi sëriñ saali woolu ko boppam ne ko da nga maa bëgg nga fekk sama fii Tuuba moom mu def koy caaxaan mu def koy caaxaan daayira impôts domaine daayira impôts domaine di war a dem ziyaar yi Serigne Saliou Serigne Saliou fii ñu wax ko moom mu gàntal mu ne ah dem leen rek man weekend damay noppalu ba ci yàgg ba ci yàgg mu tëddaat Serigne Saliou ne ko yow maa la wol sama bopp damaa bëgg nga ñëw keroog keroog daayira daayira impôt bi moom mii moo la njëkk a Touba moo la njëkk a gis Serigne Serigne Saliou Serigne Touba Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Touba Serigne Saliou moom la téye wax ak moom. ne ko damaa am ak yow ndax dangaa fekk damaa mel damaa fekk ci lëndëm indi ma ci leer muy fatama kon sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou ndax kooku xam na kii li nga ko defal ba sëriñ doomi sëriñ Touba du ordinaire doomi sëriñ Touba moo amul parce que ka mën a toog ka mën a toog Touba gi gis kenn ku jël sa photo mu poussière nga mu dépoussière ko fomp ko ba mu set teg ko nga gis ko woolu ko si ay gént nga ñëw nga ne kat damaa amale ngërëm parce que da nga maa mel ne ku ma génne ci leer ku ma génne ci lërëm indi ma ci leer loolu Serigne Sall ko mu jébul nag mu jaar foofu jébul foofu yaakaarul kenn ku dul Serigne Sall bi mu ko bi mu toogee ba Serigne Sall yu nekkatu fi Serigne Cheikh Sall la jox boppam moom la yóbbu àddiyam lii nii lii nii laataa mu ciy tàmbali jox def benn jéego lim ñi a def mooy dem dem dem ba xel ko am fa ay waxtu yaagu Serigne Cheikh Sall doo ko jox ndigal ne ko am nga ndigalu laaj réew mu doo ko ñëw laaj réew keroog keroog keroog biñ ko biñ dindee keroog keroog biñ dindee ndombal tànkam keroog bañ dindee ndombal tànkam bi ko Macky Sall dindee jëlee ca bopp CDC gis nga keroog ba mu jéppalee lenk lengee Touba gii la añsee fi la daanaka fana fi la fi la guddee na fi lool ñëw ne Serigne Cheikh Sall lépp lu ma joxoon lu ma Macky Sall joxoon delloo naa pare naa pour jàkkaarloo Sénégal mu ne ko demal ndàmb rek dam demal ndàmb rek nga yem mu jugee foofu woo képp ku wër képp kuy xalifa Serigne Touba mu dem ba ci ñoom ne leen awma leen lu dul Serigne Touba ndax man taalibe Serigne Touba la dama bëgg nag bu may root fii laay tàmbalee root root seefi kon nag damaa bëgg li ma leen wax ngeen bàyyi ko xel ndax moom dane moom moom dama bëgg ngeen may ma rek ndax li il fallait que ma éclaircir ko ngir que yéen ñii di ay communicateur traditionnel suñ leen waxatee Mame Boye Diao nu mu def ak yoonu murid wala loo ko boole ci yoonu murid nee leen ko Serigne Saliou moo ko lonkal boppam indil ko boppam moom moom dane dane day tàmbali tournée nationale ñu ne ko président te nga koo tàmbale région de Dakar wala nga tàmbale ko région de Kaolack fa sa yaay dëkk wala nga tàmbale ko Kolda ga nga doon maire wala nga tàmbale ko feneen mu ne damay bàyyi fépp man ca barke laay wër barke njaareem laa koy tàmbale waa mais ñun ñii bu dee nag ñun man bu dee nit laa ngeen war a comprendre comportement bi ma amee ci wetam ndax nit bu lu njëkkati mu ne yéen la yéen waa Touba yéen waa Mbacké ay parrainage ñu ne man mu ne man pare parrainage waa Touba waa Mbacké ak réseau de moom laay xaar waaye yéen lii ku leen ko séddee ci boppam loolu teraanga la kon nag nit ñoo war a laxasu mooy góor yàlla yi nan laxasu takk suñu ndigg yi dugg ci terrain bi wuutal ma ay parrain fiable ñoo ngi ci nag li tax jébbaluñu la ko tey daam lim bu ñuy xaar bu matee rek daan la ko jébbal mais nu mu gën a gaawee na na gaaw parce que moom dane moom lay xaar pour remplir kon nag buñ fi jógee képp ku mënoon dajale man soxluwuma naa ay mille naa ñin may won chaque jour ñu envoyé ma yi soxluwuma loolu li ma soxla mooy ñi ngeen dëkkal te xam leen jour vote bu jotee ma yónnee leen kaar ngeen mën a jëlaat ñooñu parrainé woon dugal leen ci dem vote ci parce que man liggéey boobu lañ yàggal liggéey te liggéey organisation ak méthode lañ koy defee c'est pas la peine te dajale ay nit mbooloo bu ful mbooloo te ñooñ duñ wateel kii soxluwuma loolu li ma soxla mooy li ma gëm ñu gëmandoo ko nan xool ñeneen ñu ciy mën a dolli loolu laa ci am lu ma ciy wax di sant ñëpp na di gërëm kii nag moom xët-xët gi bëri na parce que man damaa xamul li may wax sëñ Ibrahima la ma tudd li ma gëm rek laay wax man naa ko wax nag waxin bu bu jaarul yoon waaye nag li ma gëm rek laay wax moom mii moom mii yàlla daa def laataa muy laaj réew mi mu jàppal ma boppam la bi ma njëkkee gis li ma njëkk a wax mooy Abdou Lahad boo ma soxlaatee yow yow jox naa la autorisation bul ñëw sama bureau ñëwul kër ga premier koo xam ne xamoo ko gis tey nga koy doo gis xamoo lu mu làmboon nga ne ko yow bu mu ñëwati sama bureau bis na tey dee ma fekk sama kër waaye du la du la wax mukk ne solol naa ko kër du la du leen wax mukk damaa bëgg tamit ngeen mu leer du leen wax mukk ne sonal naa ko këram du leen wax ne mukk tamit sonal naa ko bureau appel nag sonal naa ko loolu ndax soxlay jaamu yàlla yi laa ko te nit ñi bu ñu yaakaaree ba ñëw ci moom man yaakaaruñu moom moom moo tax des fois dañuy gis ne damay affiché ak moom ñu xam ne bu ñu jaaree ci man jot ko ci moom loolu rek a tax appel di message di bëri bu ñaaree boppee nag te tontuwul damay mer parce que noonu la ma yàlla bindee ah damay non damay wax noonu damay mer waaye nag loolu nan na ma ko bañee jàpp ndax moom am na compréhension boobu parce que tàngoon naa lool waaye wàcce na ma lool giifal na ma lool. ndax wan na ma ne mooy sama mag mooy sama baay te su may waajur dañ koo bëgg moom mii dëppi deux mille dix neuf. di ziar maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gu tedd gi suñu xalif sëñ Mountakha Bachir di ñaan sunu borom yàgg ko bàyyi sunu kanam mu ànd wér di ziar it ndaga Mbàkke la te xam naa ni baylaat ci la bokk. xalif général de Baye Fall ñoom di Modou Mbend bi nga xam ne ci màggal gi ci wàjkaayu màggal gi jotoon nañ dem ziarante mu teral ni di di nuyu nag bu baax vraiment ñi ma dalal fii ci Mbàkke tey ci seen activité politique ak kilifteet gi nga xam ne am nañ ko mais terewul ñu ñëw ànd ak man bi ma duggee Mbàkke ba léegi yàlla def ñu demoon ñuy gis suñu benn mbokk mooy Abdou Aziz Ndiaye président mouvement ànd nawle bi nga xam ne daf ñoo fekk si woon pour ñëw dimbali ñu ci xeex bi mais mu xalaat ni balaa ñu koy def pour mu fësal ko il fallait que ñu ñoo fekk ko ci biir Mbàkke mu wone te macha allah li mu fa wone ah ñun daal suñu xel dal na suñu xel nag gën a dalati bi ma ñëwee ci suma rakk suma xarit suma rakk bopp mooy Baye Lahad Abdou Lahad muy ànd bu yàgg dëgg la yéen bu ngeen di wax ci moom président mouvement Adiya ngeen di wax mais man Abdou Lahad suma rakk la àndu démb la nag te yaakaar naa ni moom de bokk na ci ñi nga xam ne mën naa taxaw ne ko Abdoul Ahad li ma la yéene yàlla na ma ci jiitu yàlla naa la ci jiitu moom it mu ne ma li ma la yéene yàlla naa la ci jiitu loolu mun naa ko firnde donc ma koy sant bu baax nag mu nekkit le délégué régional au parrainage ci région de Diourbel mais tey ñëw bi bokkul parce que politique lañ nekk aussi il mu leer damay bañ suñu ay responsable yi nekk ci yeneen gox yi foog ni damaa ñëw yégaluma leen donc dama ñëwoon ndax loolu dafa nekkoon yitte ci man sa ay nit aussi buñ la woowee da nga ñëw fekk si leen donc ku ma woowee dinaa ko fekk si baylaat di nuyu bu baax sa mouvement bi jigéen ñi seen président groupement yi seen responsable yëpp di nuyu jeunes yi di nuyu communicateurs traditionnels yi di nuyu influenceurs yi di nuyu képp ku ñu gunge ci journée bi nga xam ne moom lañ dédié Mbàkke may sant bu baax nag ndax xam naa ni ñi ma ko seetal ay nitu qualité lañ ay nitu valeur lañ dañoo nekk ci jamono bu xaw a doy waar dafa am benn camp buy taxaw fu ne ci àdduna fu ne ci réew mi dinaan élection yi bu ñu demee un coup kawoo la ñuy def du dëgg yow nga ne da ngay dem élection ku ñëw di ko daan ci premier tour te nanguwoo ñi nga war a jàkkaarloo wër Sénégal nuñ ko bëggee wër dajaleeg doomu Sénégal fu ñu leen war a dajale da dul dëgg da dul yoon ndax tey mënuñu comprendre man ma war a ñoo Mbàkke ñuy laxat di dugg ci ay ruq-ruqaat pour dajale ay mbooloo di leen def ci ay place yu xat sànq bi ñu demee ci biir bi Abdou Aziz fu ñu dajale da ngay xam ni dëgg-dëgg place yu am Mbàkke nit ñi bëggoon ñëw pour waxtaan ak ñun buñ ne parrainage parrainage mooy nit bi nga xam ne am na njort ni boo jàllee candidature di nga mun jongante ji te boo amee ndam billahi ni nga ko foogee dina la mun liggéeyal mais mm. léegi ki la war a gis pour ànd ak yow ndax loolu ndax convaincre nga yow ñu ne da ngay dem wax ak moom loolu mooy parrainage li war mooy ñun ñu mën wër Sénégal képp kuy candidat à la candidature waroon nañ ko mun bàyyi mu dugg ci ruq-ruqaat yi dugg ci biir réew mi def lu ko neex mais da ngay téye nit ñi dégg ngeen ko ci Khalifa Sall. dégg ngeen ko ci Malick Gakou dégg ngeen ko ci Bougane dégg ngeen ko ci ku ne te loolu moo dul dëgg yow nga ne da ngay nangu heure bu leen neex ngeen jóg waxuma sax tournée économique bu nga xam ne amul dara lu ci économique ndax man gisuma sax ministre buy ubbi poste de santé loolu dafa ne liggéey bi nga xam ne sax maire la wax maire parce que poste de santé compétence su maire la mais ngay wër ci dëkk bi di ubbi ay poste de santé alors que sénégalais yi seen xam nañ ko munoo woote munoo woote benn conseil présidentiel wala benn conseil interministériel waxtaan ci mbëkk mi nga xam ne xale yi ñu ngi dee ci géej gi ñu ngi daw nga ne da ngay dem di wër réew mi nga tere ñeneen ñi wër ngay pré campagne mais ni ñu bàyyi ñëpp pré campagne d' accord nag ñoom ñu campagne mais boo waroo sa bopp nga ne yow ku ñëw nga daan ko ci premier tour mais bàyyi ñeneen ñi wax ak Sénégal léegi foo dem ñu ne yaa ngi mobilisé na que yow am génn ñun fuñ ñu jox bayal bu ñu jox Mbàkke man soxla wu fukki responsable biir Mbàkke pour feesal ko ndax man xam naa li ma fi am ci ay mbooloo waaye da ngay mujj ñëw di lakkatu di nekk ci ruq yi te loolu warul dëgg nañu bàyyi sénégalais yi nga xam ne bëgg nañ ñaan vraiment baatu askan bi pour ñu jox leen ko ñoom ñu wax ak askan bi ba koo wóolu mun ko parrainé nga pare ne ko mais sinon li ngay gis mooy ay nit yi nga xam ne c' est dans la clandestinité qu'ils font leurs activités politiques te loolu du yoon yéen da ngeen bëgg a yow da ngay dopewu da ngay ut say supporter wut sa arbitre nga ne da ngay bëree mais kon kay njort naa da ngay daan mais du ñu daan kenn ndax ki ñu mënul daan mooy tax ñoom ñu daan mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan waa ngi koy dund jafe-jafe yi nga xam ne suñu ay ndaw daf leen di jaral yow nga toog nga ne man dee naa ba pare kon bu ñu may tere deewi ci géej gi damay gën a tarde rek loolu moo fi ne te ñu mun wax ak ndaw réew mi ne leen ëllëg mun na nekk ngeen mën fi toog liggéey fi tekki fi ngeen jël jigéenu Sénégal fu ñu daje foo ci gis fukk si ñoom bokk koñ wala bokk dëkk ñoom dinañ góor góorgóorlu ba dajale seeni as réew gi ñu am commencé di liggéey seen biir di njëriñante nga war leen dooleel ñu mun dimbali seen i borom kër ñu mun dimbali seen i njaboot nga mun leen dimbali ci loolu au lieu que nga def ko nga leen di bàyyi ñuy ñafeek avec ñuy ñafeek calebasse ñuy ñafeek ay genre nit yi nga xam ne mais ku leen lebal nga xam ne taux usurier lay doon nga waroon nañ waxtaanee loolu doo ko def ngay ngay jël réew mi di ko téye en otage démocratie nag c'est la loi de la majorité mais mu nekk nii bu dee yàlla may nañu. kii nga xam ne moo jiite réew mi mooy président Macky Sall moom nekkatul candidat waa léegi ku war a mun samp ndëndam day war a ñoo mun wax ak askan bi ne man de lii laa am yéene def ci suma réew bu boobaa ku ci ànd ànd ak moom ku mën daan wax bi jeex mais yow munoo nekk pre campagne d' abord tere nga nit ñi candidat parce que pendant un an ou deux kenn xamul fi ñu jël élection bii moo gën a gàtt ci pré campagne ak campagne électorale ci histoire politique sénégalaise nga war a ñëw léegi ci diiru ñetti weer encore nga bëgg leen tere déplacement foo romb ñeenti oto nga ne leen amu droit def caravane mais ngelawaay ñu bàyyi nit ñi ñu wax ak askan bi parce que kenn violence fi kenn fenn fenn fenn ci réew mi loolu dama ciy lancer un appel solennel ne leen. bàyyi leen les candidats la candidature ñu dugg ci biir réew mi wuti parrain parce que parrainage ku la ko mun jox mooy ku njott ni war ngaa mun yor réew mi pour mu mun njott war ngaa mun yor réew il faut mu xam lan mooy sa yéene ak lan mooy sa mbébét pour que askan bi mun jóge ci situation bu mu nekk mooy li ngay wax sànq Abdoulahad ngay naan boo sañoon ñu jëm ci sancaan yi dëgg la parce que yow xam nga li ne fii ñun xam nañ ci as néew ndax Touba. dëkk bi nga xam ne bu dee population bu dee démographie ak koom bokk na ci ñetti dëkk yu gën a mag ci réew mi mais ba léegi Touba dafa am ay teen ba léegi Touba dafa am ay quartiers yu amul ndox bu pensez que c'est normal ñu war ko waxtaanee mais dañ ko war a waxtaanee fu ñu ko war a waxtaanee ak ak suñu ay mbokk Touba wax leen ni branchement bu ngeen ko nangoo nag nit boo ko waxoon fii fayal ndox ñu indil la ndox dina ko nangu ndax màggal bu jotee li muy jënd ci ndox rek fay na facture ndoxam at. mais kon nañu nangu débat yooyu te loolu koo ko wax du na ñàkk nga taalibe déedéet nit ñi dañoo soxla ndox seen yi kër koo ko wax dina ko def mais dañuy ñamal famille yëpp la ñuy ñamal ndox ci biir Touba ñu war ko waxtaanee ñu war a waxtaanee assainissement Touba c'est une ville en devenir avec un potentiel économique extraordinaire dañuy foog ni Touba affaire diina kese la mais li fi nekk ci koom yéen xam ngeen ñaata doomu Touba ñooy jóg. ñii di defar ay dëwlin ñii di defar saabu ñii di defar lu ne les micro industries pullulent à Touba mais amuñu potentiel pour organiser ko pour ñu liggéey ni mu waree ni mu méttee Touba la méttee Mbàkke mais loolu yëpp dañ ko war a waxtaanee ak askan wi vraiment dafa doy waar xëy na nag li may indi woon tey mooy pour fësal suma diggante ak yow mooy sàmm suma diggante ak yow te loolu xam nga ni jarul ma koy wax ci média mais dafa baax aussi bu ñu tollee fu mel nii ñu mën wax ak askan bi ñu mun jël sénégalais yi comme ay seede campagne de parrainage lañ nekk collecte de parrainage nañu bàyyi candidat yi à la candidature yi nga xam ne DGE jox na leen ay spécimen pour ñu mun uti ay parrain nañ leen bàyyi ñu mun dugg ci réew mi nga la waaye ku ñu bëgg waxal mu wax ak moom ku ñu mun convaincre pour nga parrainer leen nga parrainer leen yow munoo am woo bu la bu dee sa mbër moom wóolu nga ko vraiment loolu laa lay ñaan man loolu lay ñaan à l' administration sénégalaise ndax bëgg bëre bañ bëre ndax nu mu munti demee le 25 février ay candidats dinañ fi am ñun nag wóolu nañ suñu ay mbër ñun man parce que xam naa li ma am région de Diourbel xam naa li ma am ci biir Sénégal parrainage du nekk problème ci man mais nag élection élection présidentielle du question ni ku nekk candidat rek day gagné mais dafa di jamono bu ñuy waxtaanee réew dama koy faral di fàttali boo demee France. am na benn waaye bu tudd Philippe Poutou am na ku tudd Olivier Besancenot il représente des classes ouvrières am na ay regroupement de chasseurs mais ñoom ñëpp dañuy profité ci campagne bi xam nañu du ñu weesu deux pour cent mais bu ñu nekkee candidat au moins dinañ de cause li tax ñoom ñu engagé wu ci wàllu politique donc on ouvre les vannes on n'a qu'à le talent des hommes et des femmes sénégalaises s'exprimer que ñi am xam-xam ñi bëgg yaakaar ne mën nañu yor réew mi ñu yor ndax nit ñi sonn nañ jafe-jafe yi dafay mel ni ku boppam di métti ñu jox la garab biir buy métti doy na nag sëkk il est temps qu'on laisse les candidats la candidature dem ci parrainage laxaat maa ngi jéggalu waroon naa wax ci yow mais c'est révoltant que l'actualité continue continue à être vraiment le fait que de candidats à la candidature ñu leen di téye ci ay buntu dëkk téye leen fa juróom benn waxtu juróom-ñaari waxtu du ñu mun dox seen i soxla mais bu ñu wóolu seen bopp nañ bay ñu xam naa ni ñun ñoo tardé mais sant naa ñëpp gërëm leen salaamaaleykum wa rahmatullah